kii Macky Sall ba mu nekkee ci position de force Sorano la taxaw naan ko farim fañ fañ fañ fañ foofa xaw ma lan farim wàccaa caa ñii boole boole bu dee dañu na nam mu dóor ak ay kii danaa leen yéen a dóoraat leen boobu position de force la léegi nag position de faiblesse la toll fu mu toll nii mu xam ne gars yi fu mu toll nii jekku nañ ko. muy ñëw naan waa yéen waa PDS bu fekkee am na lu ma leen def maa ngi maa ngi jégalu te damaa bëgg ngeen ànd ngeen ñëw ñu ànd liggéey Sénégal loolu yéex na koo def mais il ne l'a pas fait dafa dem déglu les les les les les les anciens dinosaures muy ay Dansokho ak ñeneen ak ñeneen ñu naan ko tëj ko euh, Ablaye Wade di ko jiñ ay sàcc moket ak ay oto position de faiblesse la nekk moo tax tey muy woote nii

tey jii ñun ñi bu ñu demee tey ba ba opposition bi yëpp ne nañu booloo nekk benn parce que suñu demee d'une mañee dispersée Macky Sall dañuy gagné léegi dañu boole sunu force mooy suñu doole ñun ñëpp ñu booloo nekk benn de benn